الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا بنو تامبلي ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko démb ñu ngi doon jàng tegginu faj aajo tey ñoo ñu ngi jàng aadaabul julus wal majlis aadaabul julus wal majlis tegginu toog naka la ñuy toogee ci mbooloo naka la ñuy toogee ci place ci ab barab teggin yiñ fa war a am moom la ñuy jàng tey su ma doon joxe misaal damay joxe misaal rek fii nu nekk kenn ku nekk ñun war na fee dégg tey loo xam ne mbooloo mi nu nuy toogee nu nuy nekkee nu nuy waxee nu nuy doxalee fii lañ koy jàng tey ba daara bi di jeex démb xam ngeen bi ñu paree dañ doon laaj ay question tey tamit suñ paree noonu la kon waxtaan bi mooy al muslim xayaatuhu kulluha xaadiatun taabia li manhaji l islaam allazi tanaawala kulla sha'nin min su'uni l xayaati xatta juluusa al muslim wa kayfiyata مجالسته لإخوانه فلهذا فلذا كان المسلم يلتزم بالآداب التالية في جلوسه ومجالسته mbokk yi jullit moo xam góor la moo xam jigéen xayaatuhu kulluha dundam yépp dafa war a topp toroxlu ci lislaam jullit dundam yépp dafa war a topp lislaam jullit dundam du koo xamante ne day def lii fii suba soo mu def lëla fële mu doog a ñëw tey mu ne lislaam lan la wax déedéet jullit moom dundam yépp dafa war a topp lan islaam islaam moom nga xam ne bàyyiwul jullit bi lépp lu jullit war a def rek lislaam bi wax na ci lépp looy def rek lislaam wax na ci waroo bàyyi dara lislaam bàyyiwul a dara lislaam sa dund gi yépp la wax sa dee sax wax na la informé na la loo fay fekk foo jëm balaa ngay juddu ba bi nga juddoo fi nga juddoo loo fa fekk ña nga fa fekk ñi nga fa fekk ak ñi la fa fekk lépp lislaam wax nañ soo fi jógee fa nga jëm ña nga fay fekk ak ña la fay fekk ak ñi nga fa fekk lislaam wax na ci ñoom bu ngeen jógee foofu fu ngeen jëm lislaam bàyyiwul la dara sa mbooleem dund gi même sooy toog sax yow jullit ngay toog di toog ci place l'islam wax na la nooy toogee yaag say mbokki jullit te ngeen defe ne fi ngeen toog ni ku mu neex rek ñëw toog def loo neex déedéet balaa ngay toog dangaa war a xam nan la l'islam wax nga toogee nga toogee noonu looloo tax mbokk yi war nañu ñu jàng ñun ñëpp ñu jàng ay teggin ci sunu toog ci sunuy grand place ci sunuy pénc naka la ñuy toogee ak ñi ñuy toogal naka la ñuy toogee ak ni ñuy toogal bi ci njëkk wa ida arada an yajlisa fa innahu yusallim ala ahli almajlis awalan kenn ci ñun su ñëwatee bëgg a dugg fii toog lan nga war a njëkk a def mooy bi nga taxawee fii ci bunt bi nga wax assalaamu aleykum taxaw ba ñu fay la ne la wa aleykum salaam nga doog a dugg toog loolu mooy lu njëkk laa ngay toog fenn na nga nuyu ñang fa fekk kenn amul droit ñëw rek dugg fii rek farax rek ñëw toog boo ñëwee ci bunt bi balaa ngay dugg fii di toog da ngaa war a nuyu ñi nga fi fekk foo dem seen biir néeg sax boo yegsee seen biir saal fi ngay jàngee fi ngay liggéeyee nit ki balaa ngay wax ak moom da nga kaa war a nuyu ba pare balaa ngay def dara da ngay nuyoo iza arada an yajlisa fa innahu yusallim soo bëggatee toog fenn bu duggatee fenn li la njëkk a war mooy nga nuyu ñang fa fekk après nga doog a toog summa yajlis waaye fan ngay toog haysu intaha bihil majlisu soo ñëwee di bëgg a toog nga ñëw fekk mbooloo mi toog ndax da ngay ñëw rek fu la neex rek nga toog soo ñëwee côté bi fees na fii fees na da ngay ñëw fii nga toog fii la fii la fii lañ tàmbalee fii la yem nga toog foofu continue waaye nga ñëw fekk nit ñi niñ toog nga ñëw kenn e pusal ma toog yow e jógal ma toog yow wala nga ñëw di buux nit ñi loolu du islaam loolu rafetul loolu ñaaw na kon soo duggee balaa ngay toog lan nga war a njëkk a def nuyoo fan ngay toog mooy fi raabiyam haysu intahal majlis mu ne wala yuqimu ahadan min majlisihi li yaquda fihi bul yëkkati kenn ne ko jógal ma toog léeg-léeg nga dem ci barab nga gis benn waaye ñëw rek am xaalis am gramme bu bu ngande ñu ne jóg leen jógal yow kay jógal jógal may ko mu toog yow loolu du islaam islaam kenn du yëkkati nit ne kenn na toog foofu waa jooju mujjee ñëw fekk nit ñi toog nan la war a def dafa war a dem fi mbooloo mi yem fi ñu toogagul mu toog foofu waaye ñëw di yëkkati nit ñi loolu kenn du ko def waaw loolu sax yéen da ngeen koy def da ngeen nekk seen saali di seetaan télé nga ñëw fekk kenn toore nga nga ne jugal jugal maa fi toogoon i o yaay boo cim yow yooyu na ngeen koy def yéen ñi fi maa fi toogoon commencé di indi ay problème commencé di indi ay kët kët ci biir kër gi kët kët ci biir saal bi bërdi bërdi yàq bagage yi loolu jullit du ko def soo ñëwee nga fekk ñëpp toog demal fi nga xam ne kenn toogagu fa nga toog foofu demal ci fauteuil yi kenn toogagul demal ci chaise yi kenn toogagul demal ci banc yi kenn toogagul demal ci basang yi côté bi kenn toogagul nga toog foofu bul yëkkati kenn waya wala yajlis bayna snayni bul ñëw fekk ñaari nit ñu toog nga ni da ngay toog seen diggante waaw kon nga ñëw fekk ñaari ñu ngi toog nga ñëw ne fii laa bëgg a toog ci digg bi ndax kii sama waay la damaa bëgg a wax ak moom loolu du yëfu nit yëfu dof la kenn du tàqale ñaari nit toog seen diggante ah ah loolu kenn du ko def bul tàqale ñaari nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yuqiman ahadukum rajulan min majlisihi summa yajlis fihi walakin tawassahu aw tafassahu yonent bi nee na bu kenn ci yéen ñëw fekk ñaari nit toog nga toog seen diggante bu kenn ci yéen def loolu wala nga ne eh jógal ma toog yow bu kenn ci yéen def loolu waaye lan la soo bëggee ñëw bëgg a toog da ngay ñaan gaa yi gaa yi waay gaa yi pusante leen waay gaa yi pusante leen waay ma toog ah waaw gars yi yaatalal leen ma waay waaye gars yi may leen ma waay ah nga daal di toog waaw kon soo bëggee ñëw nga toog fenn looy wax waaye gars yi dimbali leen ma waay waaye gars yi may leen ma waay kay pusante leen waay kay jàppale leen ma waay ma toog gars yi daal lay jàppale daal di puusante daal lay dimbali nga daal di toog ah wa kaana ibnu umar ida qaama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fii ibnu omar kenn la ci ñu doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ibnu omar turam mooy abdallah ibnu omar nan la tuddoon abdallah ibnu omar ibnu omar moom bu bu yegsi woon ci mbooloo yegsi ci buntu bi rek taxaw benn waaye daal di jóg ne ko kaay toog fii ibnu omar du toog foofu ibnu omar moom ku toog ku jóg ci place am ibnu omar du fa toog moom loolu la loolu la meloon moom moom ku baax la woon moom ibnu omar daawul nangu mu ñëw ci place ah nit jóg ci place am ne ko kaay toog mu toog foofu moom ibnu omar nanguwul woon loolu moom daaw ko def ndax ku baax la woon moom doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa qaala jabir ibnu samura radiallahu anhu kunna ida atayna annabi sal allahu alayhi wa sallam jalasa ahaduna haysu yantahi bihi almajlis jabir ibnu samara samura nee na ñun de ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn ci ñun bu doon ñëw ci place yonent bi su ñëwee fu mu fekk mbooloo mi yem rek foofu lay tàmbalee jaabir nee na ñun buñ daan ñëw ci jamono yonent bi ñoo ñëw fekk mbooloo mi yëpp toog mbooloo mi fi mu yem ñun foofu la ñuy tàmbalee toog ñun duñ ñëw di yëkkati nit ñi duñ ñëw di jéggi nit ñi duñ ñëw di leen dëgg duñ ñëw di leen buux duñ ñëw di leen puus duñ ñëw di leen tàqale duñ ñëw di leen yëkkati di toog waaye ñun buñ ñëwee fu nu fekk mbooloo mi yem rek ñun foofu la ñuy toog ndax yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yaxilu li rajuli an yufariqa basna baynasna baynasna nayni illa bi iznihima laa yahillu lirajulin an yufariqa bayna thnayni illa bi iznihima yonent bi na daganul ci benn nit nga ñëw fekk ñaari nit toog ngay tàqale seen diggante comme ñaari nit ñii ni ñu toogee nga ñëw toog seen diggante loolu daganul lu ñu wax daganul ci diine nag ku ko def am nga bakkaar ku ko bàyyi yàlla bindal la tiyaaba ci diine lu ñu wax daganul soo ko bàyyee lan ngay am tiyaaba soo ko defee yàlla bindal la bàkkaar ñaareel mbokk yi ida qaama ahadukum min majlisihi wa aada ilayhi fa huwa ahaqu bihi am nañu benn aada benn waay day ñëw toog war a jóg génnaat ñëwaat moo xam waa ji day jàpp walla dafa am lu muy jëndi day ñëwaat kooku foofu mu toogoon kenn waru ci waat toog place boobu dañ ko war a bàyyi noonu lan moo tax ñu war ko bàyyi noonu ndax ndax su ñëwaatee moom moo ci toogaat yonent bi nee na képp ku toog ci place nga jóg nga dem ñëwaat place boobu nga toogoon yow yaa fa war a toogaat kon bu fi kenn toog ci place jóg dem nga toog place am mu ñëw nga naan ko bato dem bato costé yooyu amul fii yooyu amul ci lislaam suñu toogee ci place su jógee dem day jàpp wala dafa dugg ci toilette bi wala day jënd wala dafa am lu muy régler su ñëwaatee fan lay toog place bi nga xam ne foofu la toogoon ndax loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ndax loolu fii rek lañ koy jàng rek daal di koy bàyyi ndax loolu fii ci daara ji rek la yem tey ba kañ la ba àllaaxira ba suñ dund di jeex nañ jàng loolu suñu bopp yi nañ ko ci dugal li ñuy jàng nii li ñuy wax fii waxuñu ko fii pour fii rek de dañ ko wax pour fan pour dund ci woo ñuy nekk ay paa ba ba ñuy dee ñun ñëpp loolu dafa war a nekk suñu bopp ci suñu dund gi la war a ànd mbokk yi yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ida qaama ahadukum min majlisi min majlisin summa rajaa ilayhi fa huwa ahaqu bihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit bu jógee ci place mu dem ñëwaat place boobu mu toogoon moom moo ci yey nañ ko jox mu toog ñetteel mooy laa yajlis fi wasatil xalqi kenn du toog ci digg mbooloo gis nga ni ñu toogee wee nii benn waaye amul droit rek ñëw toog fii waaw comme Mohamed nu muy def nii nii nii li kenn du ko def toog ci digg nit ñi li daa araam digg nit ñi kenn du ci toog bul fekk mu digg mbooloo mbooloo mi toog nga ñëw toog ci digg bi loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf kaa tere mu ne kenn ci yéen bu mu toog mu ne laana man jalasa fi wasatil xalqa yonent bi rëbb na yonent bi ñaanal na yàlla yonent bi nee na yal na yàlla soril yërmande ku toog ci digg mbooloo mi kon ndax lii fii rek lañ ko jàng ndax fii rek la war a yem ba sunu biir kër yi ba fu ñu mënta dem ci àdduna bi bu ñu toog ci digg mbooloo ñeenteel isa jalasa yurai al adab at taaliya soo toggatee ci mbooloo na nga respecté yii di ñëw voilà nañu xool nag yii may bëgg a wax nañu xool fii ñu toog ci mbooloo mi ñen ñoo ko respecté an yajlisa wa alayhi waqaarun wa sakina booy toog da ngaa war a am dal respect dal daal di diglu teey am moo ko fi def kenn defu ko fi an yajlisa ala waqaar wa alayhi waqaarun da ngaa war a toog yaa ngi am wegeel wegeel yaa ngi toog na teg teg sa loxo yi sa tànk waaw ne teg sa bopp bi di déglu ki ngay waxal waaye toog fële sànni fële benn tànk sànni fële benn bopp sànni fële benn loxo sànni fële benn bët sànni fële benn gémmiñ sànni fële benn nopp loolu du islaam dangay toog am wegeel wala yusabbiku bayna asaabihi doo toog di foq say baaraam waaw karaj kaj kaj kaj kaj kaj di xëcc loxo yi ah loolu kenn du ko def toog ci digg nit ñi di foqi say baaraam ah jullit du ko def wala yabasu bi lixiyati waroo toog tamit di xëcc sa sikkim naan nii waaw di xëcc rek waaw wala saa sax ngay peñewu ci kaw nit ñi loolu du loolu du rafetul si luy sewul jullit warul def loolu wala yuxallilu asnaanahu waroo toog di socc ci biir nit ñi socc ngay socc ci biir nit ñi socc yor sa socc nekk ci biir nit ñi kurus kurus kurus kurus kurus kurus tufi di jaar nii ah ngay loolu jullit du ko def aw yudxilu isbaahu fi anfi wala nga toog jël sa baaraam dugal ko sa biir bakkan naan nii di loqartu rawatina nag sa loxo ndeyjoor bi ngay lekkee baaraam kenn du ko dugal ci ay bakkan ci biir nit ñi wala nga jël sa loxo di ko dugal sa gémmiñ di xëcc sa tuñ loolu kenn du ko def waaw loxo yi chaque jour ci kaw tànk yi la war a tegu waaw nga frenkulaay tànk yi ba mu rafet daal di jël loxo yi daal di koy teg ci kaw óom yi waaw jàkkaarloog ak ki ngay waxal waaw waaw oo mooy lislaam waaye toog jël sa baaraam yi di ko dugal sa nopp yenn saa yi nga jël sa baaraam yi dugal sa biir bakkan yenn saa yi nga xaax te ndiku yenn saa yi nga ñendu yenn saa yi nga taalal sa tànk yenn saa yi nga karaj karaj yi sa loxo yi yenn saa yi nga tëdd yenn saa yi nga jóg loolu ab jullit du ko def ab jullit du def loolu ab jullit warul tëdd ci kaw nit ñi di leen teg seen tànk dafa la toog toog bu rafet bu normal noonu la ab jullit war a def toog bu normal ndax su deewee yàlla dugal ko aljanna gars yi kan moo bëgg a dugg fi àjjana waaw ñëpp àjjana ngeen bëgg a dugg kon nag na ngeen dégg li yonent bi di jàngale ngeen def ko mbokk yi wax nañ bu mu jël baaraamam di ko dugal ci biir bakkanam aw yuksiru min al bisaaqi wa tanaxumi warul toog tamit ci digg mbooloo mi di tufli di tufli nit ñi waaw di tufli ci digg mbooloo mi wala di xaaxtandiku wala di ñandatiku ay xiir ak ay fiib ak ci biir nit ñi loolu jullit waru ko def aw yuksiru min al taasi wa tasaawub wala mu toog di wóbbali xam ngeen wóbbali wóbbali mooy loolu kenn du ko def wala muy tissooli xam ngeen tissooli nekk ci biir nit ñi rek tissoo tissoo tissoo loolu jullit du ko def te booy tissoo la ngaa war a teg loxo sa gémmiñ sa loxo ci sa gémmiñ soo tissoo la ba pare nga wax alhamdulillah su fekkee da ngaa wóbbali da ngay jël sa loxo aussi teg ko sa gémmiñ nga wax aouzu billahi min ashaytani rajim soo tissoo la ba pare lay wax alhamdulillah ñi ko dégg ñu ne la après yow nga wax leen mu mu ngoog soo tissoolee da ngay wax alhamdulillah ñu ko dégg ñu ne la yarhamukallah yow nga waxaa leen yaghfir allahu lana wa lakum ñu ne walyakun majlisuhu haadi'an qalilul harakat voilà walyakun majlisuhu haadi'an qalilal haraka jullit fi mu toog toogaayam dafa war a ne tekk warul yëngatu yëngatu bu bëri jullit warul yëngatu yëngatu bu bëri ne tekk waaw concentré wu ci li ngay def ne tekk ci ki ngay déglu war a yor sa loxo dara di lu xati say wee war a yor dara sa loxo yi di lu xati ay weeg ah waaw waroo def loolu da nga war a ne tekk di déglu li ñu lay wax waaw xam nga bu ñuy wax ak yow nga yor ay bant di luqati ay wee wala ngay luqati ay nopp ah wala ngay yëngatu yëngatu bu bëri est-ce que di nga dégg doo dégg parce que olof yi nee nañ xel du jàpp ñaar wal yakun kalaamuhu manzuuma muta muttazinan sa wax ci sa wax ji dafa war a nose sooy wax yow jullit sooy wax sa wax ji dafa war a nose sa wax ji dafa war a dal sa wax ji dafa war a teey sa wax ji dafa war a organiser ndax ñi ngay waxal ñu dégg est-ce que ni nga toogee ñii dinañ xaj wa iza tahaddasa falyataharra sawab jullit suy wax dafa war a seet la gën a baax ca wax ja mu wax ko seet li gën a jub ci wax ji mu wax ko saa yooy wax dangay xool li gën a jub ci wax ji nga wax ko li gën a normal wala yuksir min al kalaami bul bëril wax wal yatajannab al mizah wal mira yow julli na nga moytandiku werante ak caaxaan jullit warul nekk caaxaankat comme ni ngeen koy defee fii ay sëykoog ay meer ndambeeg moor beñeeg ah ibra fondeeg yooyu ni ngeen ko moytandiku di co di tooñante ku nekk jël ay tur yooyu di koy wax sa morom di caaxaan wuyul e wuyul yow ku la woo sëykoo la woo waay bàyyi leen yooyu jullit day moytandiku loolu gis nga mu ngi nii wala yuksir wala yuksir min alkalaami jullit warul bëri wax gis nga jullit warul bëri wax waaye wal yatajannab almizaha walmira mooy tandikul caaxaan ak werante nit ki di weranti ah weranti bi yuuxu jullit na woytu loolu jullit du ko def waan laa yatahaddas bi ijaabi an ahlihi wa awlaadihi bul dem di jéema wax loo xamante ne da ngay jéem a dépasser nit ñi ay niveau waaw léeg-léeg nga dégg ñu ne non waa ji li tax gars yi mu ñu ko dégg mooy daf leen a raw niveau bi moo leen raw lan moo tax muy wax ak ñoom niveau boobu dafa mën ta wax ak ñoom seen selon que ñoom ni ñu mën a déggee lu tax mu tëb niveau bi ñu war a déggee mu koy wax ak ñoom na toog toog bu normal toog bu jub toog bu jub bu normal waxoon nañ léegi léegi ba mu yëngatu yëngatu yu bëri mu ne aw sannaatihi aw intaajihi almaddi wal adabi jullit mboolem ay yëngatoom wala ay liggéeyam wala lu muy def di produire wala ay tegginam wala ay way yi muy way wala taalif bu muy taalif na na jéem a def loo xamante ne bu ko defee nit ñi mun cee jëriñu waaye def loo xamante ne kenn du ci mun dara ab jullit warul def loolu ne na isa haddasa xayruhu asra yasma su fekkee dafa ñëw di wax ak keneen na fexe loolu muy wax wala ñooñ di wax ak moom mu déglu leen su kenn ci ñoo kenn ñooy di wax ak moom nga déglu kooku waaw kenn ñëwee di wax ak yow déglu ko déglu bu normal bul dagg waxam bul ko ne delluwaatal wa an laa yuqaati al kalaama aw yatluba ilayhi aadatuhu maa ngi doon wax léegi jullit suy wax bul dagg waxam bul dagg waxam jullit suy wax kenn du ko dagg da ngay toog nga déglu ko ba mu pare bu mu wax encore nga naan ko dégguma li nga wax de waxaatal déedéet ayel ba mu pare rek ba ne nga ñëwaat ba ci moom ndànk nga ne ko sànq de bi ngay wax sa kàddu gi dafa xaw a suufe dégguma foofu waxaatal ma ko waaye mooy wax ne taxawal dégguma la pour kenn du ko def kon jullit mbokk yi bu fekkee ne dafa def yii ñu wax dina nekk ko am jikko bu rafet liggéeyam dina baax ndax jullit mooy koo xam ne jullit ñëpp may nga leen jàmm ci sa loxo ak ci sa làmmiñ wal muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit mooy koo xam ne jàmmal nga jullit ñépp ci sa làmmiñ ak ci sa loxo jullit na fexe ay mbokkum jullit bëgg ko jullit na fexe nekk ku ku lewet jullit na fexe saa yi ko nit ñi gisee rek bëgg ko jullit na fexe su sariya santaanee dara mu def ko su sariya teree dara mu mooy tandik ko mu sori ko mbokk jullit yi lii nii ci gàttal moom mooy tegginu moom mooy tegginu mooy tegginu toog ci mbooloo lii mooy tegginu toog ci mbooloo moom lañ jël tey incha allah ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu dégg ak topp yooyu ñu doon wax nag waxuñu ko rek pour fii rek tey mu yem fi waaye dañ ko wax pour mu war a nekk suñu dund yaakaar naa ne fàttewu leen ko jàpp ngeen ko buñ jullee taksaan ba pare bi iznillahi tabaraka wa taala dinañu ubbi laaj yi kenn ku nekk mu wax ñu ci li nga xamante ne loolu la ci fàttaliku asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu